mbokk yi jaajëfal leen bu baax ci fasante ko lore gi écouté gi ci tànn gi Sud FM seen rajo 98.5 Dakar kàddu gi bàyyi ko Sacré-Cœur ñu lëkkaloo ci ak suñuy diwaan juróomi waxtu ca Medina Cheikh bisimilah ci xibaar yi. Adama Ndione. Euh, ci wàll gouvernement bu yees bi ak tuuma yi ñu daal di nag yëkki kii di nag Aminata Touré euh, ne daal xeetu luubal dafa daal di tàbb ci gestion daal na ci indi ay leeral xam ne nag euh, mbir mi noppi na ngir daal di ko yóbbu ci yoon dañ ci dikki ci ndorteelu xibaar yi ci eh, yéen it ñi bàyyi ko ci opposition bi eh, fekki ga ñu fekk njiitu réew mi mbir moomee eh, du nekk mbir moo xam ne daal dafay daal di dooleel njiitu réew mi yi sàll yi ci benn Oumar Sarr Idrissa Seck ñooñu dañ leen daal di nag goxi askan wi njàngatu Ibrahima Bakhoum la dinañ ci daal di nag jukki li nga xam ne nag mooy coow yooyu daal di nag fës ba tey ci wàllu gouvernement bi ak nag prolongation yooyu mu daal ci rek am di ci mën a addu ci wax sa xalaat wàllu nag exploitation bi aju ci wàllu nag pétrole bi ak euh, gaz bi débat ñeenteelu édition euh, bi journée ñu duppee euh, journée scientifique littoral littoral ñi nga xam ne nag seen xam-xam dafa daal di màcc ci wàllu nag doxalinu université yi ak wàllu environnementaliste yi daal di nag daje la ñuy xàlle ay yoon bu ko defee askan yu mën ci jëriñu waaye itam al aar alam bi sumb nañ ceeb ndaje dinañ ci ànd ak Josette Kali coowal ak gaal yi ñuy daal di nag jël di wuti bitim réew Mbour moom mu ngay daal di wàññi ñi cee daal di nag euh, faatu daanaka quartier golf googu euh, ñu ngi nekk ci ab euh, dëj lu war a toll ci fukk ci ay ndaw daal di ci nag faatu ne ñu bu ñu xaymaa lépp war nañ toll ci téeméer ju war nañ ko wax sa xalaat dañ ciy dellu siwaat mbirum immigration clandestine boobu rek ak jeexitan yi mu daal di nag am ci ndaw yi ci kanam tuuti dinañ ci daal di nag addu dinañu desandi itam ci askan wa fare ca ñaa gis ak seen doxub ñaxtu suuf ndax nag lànk ak jeexital yi ñu jàpp ne mën nañ leen ko daal di nag indil dinañ ko daal di jeexale ak Côte d'Ivoire foofee nga xamee ne nag résultat yi daal day wadd kii di Alassane Ouattara la ñuy jox ndam li waaye crise ba mu ngi ne gàññi ca réew moomu crise post électorale bi euh, ndax opposition ba lànk nañu résultat yooyu xar kanamul googu saasu ne ci wàllu élection mooy doon ponk bu mujj bi dinañ ci daal di dikk ci wàllu tàggat yaram jukki ci itam laata ñu ci wax sa xalaat Papa Abdoulaye Dieye kiis lay doon. Adama Ndione. Euh, ci kàddu gi <laughs> réaction kii di Aminata Touré gannaaw coow li aju nag ci euh, wala xibaar yi daal di nag rottee ji ci suba daal di wax ne nag yorinam ci kuréel googu ñu ko dénkoon di conseil économique social environnemental dafa bari ay rëq-rëq ca daal di nag euh, am ki fi nekkoon nag président CSE boobu daal di nay weddi kàddu yi ni mel mu ngay sax daal di àttu ne noppi na ngir képp koo xam ne tuumal na ko mu daal di koy yóbbu ci yoon Adja Ndeye Mariam Ndiaye. ma ngay tilimal deram wala nga ciy teg loo xam ne daal dara nekku ci dëgg ndaxte moom mi jiite woon conseil économique social et environnemental daal di nay fësal benn bataaxal ginnaaw ba mu amee ci ay xibaar yu ñu fësal ci biir ëcculikaay yi di xamle ne njiitu réewum Sénégal di Macky Sall moom na lu mu xamal Aminata Touré na mu yore woon conseil économique social et environnemental moom moomu nag di soxna Aminata Touré di ko weddi bay tëdd ci naaj bi ndaxte daal di nay xamle ne ba ñu ko dénkee conseil économique social et environnemental te mu toll ci fukki weer ak juróom benn na lépp lu mu fa def daf ko jaarale ci yoon amul lenn loo xam ne kon mun nañ ko ko toppee ci euh, yorinu kuréel googu rax ci dolli képp koo xam ne da nga bëgg ay firnde ci wàllu gi ni mel mun ngaa dem ca conseil économique fekk ko fa ak it nga sukkandiku ci déclaration nga mu defoon ca OFNAC yenn ci ay audiolikaay ñoom daal di xamle kon ne njiitu réewum Sénégal di Macky Sall li tax mu daal di jëlee Aminata Touré euh, ci bopp kuréel bii di conseil économique social et environnemental moom mooy na doon doxaleen ci bopp kuréel boobu beneen audiolikaay sax dam bay xamle ne ci yorinu ressources humaines yi ca conseil économique social et environnemental moom moomu di Aminata Touré nu ko neex la daan doxalee tuuma yooyu Aminata Touré ma ngi koy dàq di xamle ne kenn du tilimal deram te nag su fekkente ne li ni mel dañ koo bëgg amal mën naa yóbbu mbir yi ci kanamu yoon. mën na ko yóbbu ci kanamu yoon ñeneen nga groupe bu daal di taxaw ngir euh, taxawu ki nga xam ne mooy ministre intérieur bu bees bi ca Tambacounda ñu ngay daal di ñaawlu ñeneen ñi nga xam ne nag ñu ngi daal di nag euh, sànni xeer ministre bu bees boobule di Félix euh, Diome ñi woo nag euh, ñiy def li ni mel ñu daal di koy nag àtte ci liggéey ba muy daal di def ci bopp kuréel gi Arona Ba yore seen kàddu ñu déglu ko Boubacar Tamba. léegi daal euh, man ci li may wax daal mooy suñu frère ministre de l'intérieur ki nga xam ne mu ngi doog a jël lenge yi que nekkul nit ñi bàyyi mu liggéey surtout politiciens yi parce que moom dafa nëbbatu woon xam nga magistrat moom bëggul bruit bëggul coog te fi mu jaar yëpp def na fa résultat. loolu moo tax président am confiance ci moom dénk ko ministère de l'intérieur bi nga xam ne tey nit ñi ñu ngi wax terrorisme ak immigration clandestine bi vraiment dafa war a ñëw mu def différence jàppale police dote leen ak moyen sécurité nit ñi mu yokk ko nit ñi bu ñu tëddee mun a nelaw dégg nga foofu bugg a dem nga def fa ak xel bu dal moo tax ma doon naan ñëpp nañ ko soutenir nañ ko jàppale ndax mu mun a am résultat nu ma gën a gaawee. ñu bàyyi seen coow politicien ñu bàyyi coow politicien parce que moom talul coow parce que du politicien mm. technocrate la commis de l' la. Euh, kon ñu daal di nag weeg yéen ba tey ci wàllu nag euh, élection euh, wàllu gouvernement bu yes bi ñu daal di nag samp ak yooyu di ci daal di nag bokk na ci samp kii di Idrissa Seck Oumar Sarr ci biir gouvernement bu yes boobu mu nekk beneen xarkanam ci wàllu nag politique gi mbir moomu nag du profiter benn yoon kii di njiit réew mi Macky Sall ndax ñaar ñooñee daanaka dafa am xeetu nag passé fii ci mim réew rax ci dolli itam ñu bari ci askan wi dañ leen daal di nag yàbbi journaliste di eh, Ibrahima Bakhoum daal di jàngat nag ci analise ba mu daal di nag eh, def ne beneen xar kanam mooy daal di nag eh, taxaw ñu déglu jàngatam ak El Hadj Malick su nekk nii bu ñu nekk kujje politique da ngay laaj ci fenn kan mooy kujje gi gi yow doo xamante fi mu nekk nii ku nekk ci kujje ku nekkul ki moom lañ ci gis mu yëngatu di ci wax mais nam Ousmane Sonko la moom da ngay Ousmane Sonko da ngay nangu ne moom opposant la pour dëgër ci ci ni muy waxee ci ni muy ko gëmee ni ñu ñu koy ségum yàggul ci politique nag lool lool waaye daal ci lañ koy ségum daal mel na ne ku dëggu ci lim nekk koo gëm tey boole ci boo xoolee daf see yàggul ñëw am député ñu naan dee dafay mu ñëw nekk troisième ci présidentielle waxu ma waxu naka la ñu organiser présidentielle ba la jiitoog la ca topp yu man suma yoon naw ci li ma mën a wax mooy résultat yaa ngi nii mooy troisième jax na ku mel noonu nag bu fekkee dafa ku na nekk ci terrain bi di mu waxee moom mi nga wax ne ab opposant ngi nii waaye bu ko beneen opposant boo xam ne ci mu ngi feeñ noonu gisoo fi waaye nag bu ñu fàttali dafa am lu bees ci wàllu politique ci Sénégal ak ci àddina si mooy réseaux sociaux yi ñi ciy bokk di ci wax dañu ëpp doole fuuf ñi nga xam ne di ñoom ngay dégg ñuy wax parce que parti yuy def meeting daanaka xewwi na bëreetul book parti yu yuy def ay communiqué yu yu xam ne ci mën ngi ci jëlee dara daanaka amatul léegi ñu ci réseaux sociaux yi la ñu nekk di wax li ñuy wax seen réseaux am nañ doole mooy Ousmane Sonko foofu la feeñee ñu gis nga gis li mu am ci ci ci ci ay ay voix ñaari élection yi mu bokk donc foofu tamit dafa da ngay xam ne mënatoo xam kenn kuy opposant bu dëgër xam kenn kuy opposant bu néew doole parce que opinion publique maanaam li nga xam ne xalaat ne doomu aadama am feneen fu ñu koy tëggee am na leneen koy tëggee am na leneen nu muy doxee ci suuf loolu ci kanam lañ ko a xam mais fi ñu tollagum nii noonu yëf yi daal la wax ne ji affaire bi arrangé na nguur gi maanaam Macky Sall mun a wax ne néewal na ko doole en tout cas jox ko doole man daal mun naa li ma wax daal mooy yokkul dooleem loolu laa mun a wax. lu tax lu tax yokkul doole li tax yokkul dooleem mooy ña ah, dafa am noo xam ne boo ko ni doxalee la mu lay yàqal dafay ëpp xam nga wax dafa am benn bés bu nit ki buñ naan da nga yeewu da nga yeewu eh, yeewute gi dafa am nu muy demee xam nga naa naxe ba jàll bokkul ak ku yeewu. ci yeewu dafay loo xam ne ji bu bu jàllee tamit ba dina jàll ba poro te nit ñi duñ teel xam ne ji ki leen doon ndax mais yow loo xam ne ji dafay da ngay séenu muy xeeñ di ñëw nga naan naxaate baa ngi naxaate baa ngi naxaate baa ngi ba mu agsi kooku defal tul naxaate dafa def doole xëy na waaye nag ñii nga xam ne tamit ñoo ca topp dañoo dem xam nga opposition dafa métti nekk nekk opposition dafa métti. Sud FM. ñu daal di woy kenn nag ak euh, luy aju ci wàllu anam bu ñuy daal di euh, jëfandikoo wàllu pétrole bi ak euh, gaz bi bokk na ci la ñu doon rek waxtaanee ci ñeenteelu édition journée scientifique yu littoral bi ñii di yëngu ci wàllu université ñi nga xam ne seen xam-xam dafa màcc ci àllam bi itam di teg ay yoon yu ñu bëgg rek jaar bu ko defee exploitation bi askan wi mën koo jëfandikoo nekk lu jàppandal la ñu bëgg leneen mooy fexe ba bañ rek yàqaale wàllu environnement bi rawatina aar li aju ci wàllu nag littoral bi. Josette Kali suñu réew moo nekk di waajal bu baax a baax li ñu war a exploiter bi ak gaz bi ñu nekkee ca université ak société civile bi ñoo bëgg ci saa si teg doxalin boo xamante ni dina mën a aar population yi aarale juróom-ñaari téeméeru kilomètres yu côte yi ñu am Awa Niang Fall directrice bu JIDEL. Sénégal ci at yi ñu jëm dafay exploité pétrole ak gaz loolu laataa am li ñu bëggoon mooy ñëpp ñu toog waxtaan nan la ñuy def pour gën a mën a aar suñu tefes ak xam lépp ba ñëpp jariñu ci mais ñu bañ a lor aussi suñu gàncax loolu moo tax ñu organiser journée yi. waaye seen xel di tey léeg-léeg si jafe-jafe yi nga xamante ni bile mbir mën na kaa wund rawatina dem sax ba yàq lii di alam gi. boo waxee forage yu pétrole da ngay xalaat tout sit ne ah nappkat bi nga xamante ne nii day dem di napp gi bés bu jot. loolu lan la ko nar a gàllankooral. yenn xeetu forage yi. li ñuy ragal ñun mooy xëj na yenn xeetu jën yi. daw donc loolu risque la beneen xeetu risque bi mooy pollution déversement wu pétrole mën a yàq géej gi yàq lu bëri si suñu gàncax sans compter itamit am na yenn xeetu alal yi bu ñu ko yaakaaree ci benn côté mën na indi li ñuy wax insécurité ngir mën a indi ay tontu nag ci laaj yi di ëlëm seen xel Sarr moom mu ngi waajal boppam fileeg atum 2030 bu ko defee ñuy mën di séddale produit yu am qualité ba pare bokkaale it ci li ñuy aar couche d'ozone bi Serigne directeur général bu SAR. loolu objectif bu am solo la suñu programme bi nga xam ne moom la ñu sosal nii ak Union africaine moo xam ne moo nekk Europe dana wàññi bu baax euh, li nga xam ne moo indi jeexi jaaxa parce que pollution bi bëri ci essence bi dëgg la bëri na bi baaxul ci yaramu nit ñi ba pare baaxul ci environnement bi et donc loolu SAR déjà ci projet yi nga xam ne mi ngi ko nattal mi ngi ci jëm pour que ñu mun a am une solution globale. ñu exploiter pétrole ba population yi duñ ci tolof-tolof yu bëree loole mooy bëgg-bëgg ñi sabab yi les journées scientifiques du littoral nga xamante ni dinañ ko amal ci ñetti fan dañ ko amal ci ñetti fan coowal immigration clandestine ñu wër wàllu ñu jël wàllu gaal yi eh, def eh, lii di mbëkk mi ngir wuti bitim réew mbuur mu ngay wàññi ñu ca daal di faatu quartier golf moom dañoo nekk ci ab dëj ndax fukki ndaw yi ca daal di nag eh, faatu dañoo nekkoon ci ab gaal boo xam ne dañ ko daal di nag teg loxo ca Saint-Louis ci njabootu yi nga xam ne nag ñoo daal di nag loru daanaka jamono ji naxaar ak tiis la daal di nekkee la ñu xayma yëpp daal toll na ci téeméer ci ay nit ñi daal di nag faatu ci mbir moom Mbour Moustapha xale yaa ngi wéy di ñàkk seen bakkan ci géej gi fii ci diwaanu mbuur mbëkk mi mi ngi yóbbu xale yi bu baax a baax quartier bii nga xamante ne mooy golf ñoom ñi ngi dëj seeni doom lu mat fukki ndaw ñàkk nañ seen bakkan ci gaal gi nga xamante ne moo teere woon ca ndar fan yee ñu génn njaboot yi ñoom jaaxle di jooy seeni doom ba léegi. man dama génn fi ma doon bi rek fekk mu daal di euh, ah, sa pap boo demee du am ko jàpp mu ne ma yaay ñaanal yàlla ma dem foofu xéewal am coono bi nekk yëpp day dañ ndax yaa ngi boo añee doo boo réer du ndékki ba suñu jonn yàlla tey gisaatuma sama doom Assane daawul sax fooye ay mbëkk ay sangu sax daaw ko fooye waaye nag mbir bu fekkee ne doo ànd ak sa sago bi muy liggéey bagage liggéeyu ko ak sagoom parce que lu cay weñ ca gaal gi moo ko liggéey préparé gaal tamit à tout comme ni ko nit ñi defee dugg ci mais yàlla weddi daal mu des si ndox mi lii balaa de waaye nag am na leneen lu ci rax nanu gouvernement bi dimbali suñu njaboot yi ngir yàlla ngeen tamit Cheikh Tidiane nanu dimbali sonn nan benn jaboot du nelawatul yandoor xale yu bari dañu nga dee fi da nga fi mu nii jaboot bu toog ñaari guddi sax gisoo sa doom sama càmmin toog na guddi gisul doomam doom bi 9 am ndeke dugg na sa gaal googu tàkk noonu xale bi dafa lakk lakk lakk mu fay moo tax mu sawi ngóoru si nappkat la mi ngi woon ci biir gaal googu lee la ca dund doy na waar lool. ci xayma daal su ma la xaymaalee. ay cent nangam lañ vingt cinq personnes ñoo bi may dem quatre vingt mille la daw nañ deux jours yoo xamante daw nañ ko ci jàmm ak salaam. quatre jours yooyu amatuñ lekk amatuñ luñ naan. bi ñu amee ñetti fan ci laa ne capitaine bi gaal gi daa ndax ñun dem nañ ba couscous bi nga xam moom lañ togg couscous bu woo bi moom la ñëw bu ñu am ci benn ti yëy ñu yëyee ba mu ñu des suñ seizième jour lañ teer noir bi naan róon mbay tam dëkk fii moom mujjee gaañu ci gaal gi moom avant muy gaañu dafa daf complètement fi ñu toll nii nag xale yi nga xamante ni ñoo jël géej gi ngir dem barça wala barsaq fi ñu toll nii douane gi li fi ñàkk seeni bakkan ci ay gone bari na lool ba jéggi dayoo ci jamono jooju nag yeneen i gone ñoom ñi ngi taxaw jatu mel nay soccet ngir daal di jël ñoom it géej googi lee. li nit ñi di dee yëpp xale yi ci lañ gën xaru pour dem. ñu nekkoon Libye ñu ngi Mbuur ñu nekkoon Maroc ñu ngi Mbuur partout dans le monde ñëpp ñu ngi Mbuur parce que bu la fekkee ci géej gi seeram day doon ay xale yu am 13 ans leen gënal dee. Moustapha Sall la rajo Sud FM. mbir mu doy waar ponk la wax di ngeen ci mën a addu itam li aju sax wax ci loolee tax nag euh, wàllu prise en charge yi naka lañ leen di taxawoo ñooñu nga xam ne nag euh, dañuy daal di bëgg rek jéegaani bitim réew atelier lañ ci daal di woote ndaje mu yaatu ci àllarba ji foofa ca Ndar parquet général bi daal di koy nag euh, def bu cour d'appel bu Ndar atelier boobu nag lañ ca daal di bëgg mooy xool yoon yi nga xam ne ak waxtaan yi ñu war a rek teg ba ci wàllu yoon naka la ñuy àttee phénomène googu di ñu jël gaal yi di dem ndax jàpp nañ ne anam bañ ko daan defee ci jamono daal dinay rek xew yi ndaje bi kon ëllëg lay daal di nag am desandeek subdivision bu duwaan bu Diourbel ñoom ñi nga xam ne daal di nañuy lakk lu bari ci xeetu euh, garab yu ñu daal di nag teg loxo ak li nga xam ne nag xeetu sinébar euh, si la ne ñu lu war a toll ci juróom-ñaar fukk ci ay kilogramme chanvre indien euh, buñ ko xaymaa ci koppar juróom-ñetti million la ak lu tegal waaye itam ay sachet yi nga xam ne nag gañu xaymaa itam valeur bi war na toll ci ñeenti téeméer ci ay rek junni ci suñuy koppar koppar ak médicaments yi nga xam ne di garab baaxul benn milliard bi teg na ci bañ ko xaymaa ci wàllu koppar Adama Ndiaye. subdivision bu douane lakk li nga xamante ne ay produits yu baaxul lañ. ak ay ñoll am na sachet en plastique ñu xayma ko ci quatre cent mille francs juróom-ñaar fukki kilo ci wàllu yamba ak ay faux médicaments yu nga xamante ne xayma nañ ko ci milliards yu teg quatre cent millions as tuut ak as tuut gouverneur bu diwaanu njaareem di góor gi mbay fekke li ni mel di rafetlu lëkkaloo bi am ci diggante ñi bokk comité régional de sécurité. te dañu bëgg ñun bu ñuy liggéey ñu indi résultat parce que réew mi foofu la toll administration da war a indi ay résultat tekk ci loxo nit ñi ba ku nekk population yi askan bi gis na ñii seen njëriñu ngi ku ci nekk mën na teg ci bët. te boo nekkee ci yoon ngi leen la xaaxam yeeg ndekki ak li la mën a gaañ mën ngaa dox ci yoon woowu waaye développement àndul ak médicament yi foo àndul ak yàmbaa xale pour drogué loolu mënta ne. lakk boobu ñu def ko ci kanamu ki nga xamante ne mooy président bu tribunal de grande instance bu Diourbel di Pape Mohamed nekkaloon fa it procureur de la république. dafa am ay texte de loi yoo xam ne mooy nekk ci réew yi ñu war a sukkandiku pour doxalin. texte de loi yooyu nekkul pour luy protéger nit ki rek ci. yaramam ak si alalam mais dafa nekk loo xam ne mën na protéger au delà nit ki ak alalam environnement bu muy nekk ak la nga xam ne moom lay jëfandikoo si yaramam. texte yooyu bokk na si li nga xam ne mooy lutter contre la contrefaçon et les stupéfiants donc loolu moo tax ñun saa yu ñuy yoree dossier boo xam ne dinañ ne jalgati na yoon suñu war mooy ñu àtte ko suñ ko àtte nag ba ëtt àttekaay yëpp ñu wër ko ba mu jeex. lay yoon mooy. tund yooyu ñu saisiroon te xam ne teguwul ci yoon ñu lakk ko lieutenant colonel Cheikh Faye bu douane rafetlu lëkkaloo bi nga xamante ne am na diggante force de sécurité ak yu défense yi yi nga xamante ne ñu ngi fii ci diwaanu Njaareem Diourbel Sud FM Adama Ndiaye. Adama Ndiaye dañuy daal di des ak moom ak ordre national pharmacien yu Sénégal lakk ba ñu lakk garab yooyu daal nañ koy rek rafetlu jàpp na seen i ndam la waaye itam eh, ñaan nañu ñu daal di nag eh, def crime li nga xam ne mooy jëfandiku garab yu baaxul docteur Amath Niang di président ordre pharmacien yi ñu déglu ko ndam la ci ñun ñi nga xamante ni ñoo jógoon di ko xeex ngir garab bu mucc ayib garab goo xamante ne nii am na autorisation pour dugg fii pour que garab googee Sénégalais yi di ko mën di ko fajoo donc lii ñu taal valeur un milliard trois cent et quelques millions de francs tey suñ ko bàyyi woon mu dugg ci dëkk bi moo xam Touba moo xam fu mu ti ne parce que garab nit nit di voyager la garab di voyager donc loolu li muy indi ci yàqute li muy indi ci loraange kenn mënul xam nu mu toll. nekkul tey pharmacien rek moo war a jóg xeex lii c'est vrai que ñun la yàlla dogal ñu jàng ko muy suñu xam-xam également yoon teg ci ñun ne ne garab kenn mënu ko jëfandikoo ku dul pharmacien donc su ay nit jógee ni pour ñu am xaalis il faut que ñu dem di jaay ay garab je pense que loraange googu muy jur ñun ñëpp ñoo ko war a leneen li ma ciy teg rek mooy gis ngeen ne mbas mi fi am réew yëpp ñu ngi jéem a wu. pour mën a amal seen bopp seen i garab defare ko si seen biir tëkk nga xam ne ni dootuñu ko jéggaan mais loolu aussi mënta dëkkaale ak ay garab fu nekk ñu di ko jaay te pense que loolu menace la ku ci nekk ci ñun war na jóg xeex ko xeexuñu ko nag pour njëriñu pharmacien mais dañu ko xeex ngir population bi ci boppam am ay garab yu baax et kenn dootu ci loru Euh, doxub ñaxtu askan wu ñaagi se la ñu jëm la ko waral nag euh, mooy seen mer ba futtu ci lotissement yi ñuy amal ca dëkk googule askan wa ñaawlu nag euh, li nga xam ne mooy autorités locales yeeg nañu fay daal di nag doxalee Ziguinchor Niass Ndeye. Bamba le corrompu. Bamba le ci kàddu yi ni mel askan bi fekk ñaagis wàcc tey ci suba ci mbedd bi fii ci diwaanu Ziguinchor ci doxu ñaxtu bi nga xamante ni ñu ngi doon wone seen mer ci lépp lu bàyyeeku ci lotissement ci commune ñaagis ñu mere loolu kilifa yi fekk baax ci mairie ñaagis jàpp ni tey jii li nga xamante ni ñu ngi koy def ci lotissement bi jaarul yoon ñoom ci doxu ñaxtu bi nga xamante ni ŋàññ nañu bu baax kilifa yi nekk ci mairie ñaagis naka noonu tamit kilifa yi nekk ci wàllu administration jàpp ni seen tekk bi tey na xel Niang di njiitu mouvement mii di FRAPP dégage rotal kaddu yi ni mel. ñetti at ngi mairie bu ñaagis di def un lotissement illégal di def un un lotissement illégitime di def lotissement boo xam ne amul benn benn benn transparence benn démocratie mais di def lotissement boo xam ne lenn rek lañ ci mën a jàpp bii bukki bii njuur bii samba bii borom dëj bi ñu bàyyi askan wi bàyyi béykat yi bàyyi suñu ay yaay bàyyi suñu ay pap te loolu du dëgg du yoon yi te loolu du dëgg du yoon sous préfet bu ñaagis bu dee danga am ci quota lotissement yi wax ñu ko préfet bu Ziguinchor bu fekkee danga am ci lotissement yi wax ñu ko gouverneur bu Ziguinchor bu fekkee da am ci lotissement yi wax ñu ko ndaxte lotissement bi mooy lotissement bu gën a ñaaw dans l'histoire di Sénégal mel ni loolu doyul ñaag yi i askanam ñu ngi laaj ñu bàyyi ñenn ñi ñu jàpp ci ñoom ci wàllu lotissement bi ni mel ba tax na ñetti weer a ngi nii ba léegi ñu ngi ci kaso bi li ñuy laaj kon mooy suñu ñeenti doom yi ngeen jàpp parce que ce sont des résistants fonciers parce que ce sont des démocrates fonciers ngeen bàyyi leen ci nu mu gën a gaawee ndaxte bu ngeen leen bàyyiwul tey marche bi fii la jeexee waaye suba marche bi maison d'arrêt et de correction lay jeexe bu ngeen leen bàyyiwul tey marche bi fii la jeexee suba mairie da ñaagis lay jeexee bu leen bàyyiwul tey marche bi fii la jeexee suba gouvernance lay jeexee bu bàyyiwul tey marche bi fii la jeexee suba tribunal lay jeexee askan bi fekk gis jàpp nañu ni dina am yeneen i action yi nga xamante ni dinañ ko déroulé waat loolu yëpp pour wane seen naqar ñoom ñi nga xamante ni jàpp nañu ni tey beneen feebar wàllu suuf moo nekk foofu mu di corona suuf. Ziguinchor Ignace Ndeye Sud FM. Ignace la la war a sax ñuy jaal ñuy sàkk ñu dakkal opération lotissement yooyu ñu fay def coordonnateur mouvement citoyen mouvement euh, union citoyen boobu jàpp ne sax autorité yi tekk tekkaaral am na la nekk ca ginnaaw Madiop Diop Sané ñu déglu ko Ignace Ndeye. mbir bi dafa doy waar te foo ko nattee rek weesu na ko xam nga Ignace nga gis lotissement bi nga xamante ne bu ma amee ba léegi trois ans nit yaa ngi ciy topp di daw pour waxtaan bëgguñu waxtaan. ñu dem ba xaar benn occasion population yi dem ba génnee ay bornes ñu dem jàpp population yi tëj leen si tëj boobu ñu ne population yi juge d'instruction moo leen déglu même boo deful droit même boo xamul yoon yoon dafa sew mais boo déggee instruction rek da lay tiital ñu jàpp doomu jàmbur yi dugal leen si kaso bi mel ni ay mala lañ fa teg bàyyi leen fàtte leen fa. am na ku ñu convoqué waat fase naa ko wasi nasara am na ku ñu convoqué waat pour le 5 juge d'instruction. moom dafa mel ni dafa bëgg jàpp doomu jàmbur yi ñi nekk si bopp bi benn par benn di leen tëj te loolu lañ dul nangu loolu dañ ko dul seetaan parce que dëkk bi après tout dëkk yoon la te juge d'instruction jàngul pour jalgati yoon dafa jàng pour teg yoon procureur tamit ainsi de suite doomu jàmbur yi ñuy jàpp ni bëgg nañ ñu mu gën a gaawee ñu bàyyi leen ñu wala leen ñu bàyyi leen ñun loolu mooy suñu tànk te xeex bi tant que loolu amul ñun duñ ci taay beneen bi mooy lotissement ñaagis bi bi nga xam ne 592 hectares gars yi caxat-caxatee suufu jàmbur yi nu mu leen neexee te nga xam ni tey sa suuf mooy sa alal ñun suñu pap yi bàyyi lu ñu ay compte bancaire lu ñu bàyyil doomu jàmbur yi mooy suuf si suuf si la ñuy liggéey boo gisee tey immigration clandestine bi am doole c'est parce que sénégalais yi amuñu ay tool amuñu fu ñuy béy mais ku am loolu dana dem béy mais wax dëgg yàlla am na lu ñu ci métti trop mooy tekk tekkaaral gouverneur tekk tekkaaral préfet ak tekk tekkaaral sous préfet da kii ñaa gis xanaa ñoom dañu laale si yëf bu fekkee dañ ci laale ñu wax ñu ko mais yëf tey na xel te CNDT ñëw na fi def na lépp ba nee ñu ñii dinañ leen bàyyi France daal di xidem ba léegi donc affaire bi lu mu làkk moo gën a bëri waaye fu mu làkkatu fu ne dinañ ko lijjanti lijjanti ko ba génnee ko ñu ñëw ci wàllu nag Covid 19 bi feebaru mbas mi bilan bi gën a nag néew ba yëf yi commencé léegi ndax nag euh, ñetti cas yu test positif rek la ñu daal di nag euh, am euh, te transmission communautaire la waaye am na kenn ki daal di faatu juróom-ñeent fukk ci ay nit faj nañ leen ba nu wër bu ñu sukkandikoo ci directeur bu prévention di docteur El Hadji Mamadou Ndiaye ñu déglu ko ci micro Sud FM. ci ñeent téeméeri test yu ñu def ñett ñoo ci positif ñett ñooñu ñëpp. amul cas contact amul cas bu jóge bitim réew ñett ñëpp ay cas communautaire lañu te seen lim nii la tëddee cité Kër Damel moo ci am benn Grand Mbao am benn ak Kolda am benn juróom-ñeent entré woon hôpital wala ñu toppoon ci biir kër yi wér nañu bés ni tey dinañu génn bu ci yàlla àndee juróomi malade ñu nga réanimation benn malade ñàkk na bakkanam bu su démb altine ñaari fan ci weeru novembre mi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bësu tey dalee ko ci kaa bu njëkk ba senegal wëññi na fukki junni ak juróom ak juróom téeméer ak ñeent fukk nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu fukki junni ak juróom ak téeméer ak ñeent fukk ak juróom wér nañ si ñett téeméer ak ñaar fukk ak juróom benn ñàkk seen bakkan mu des téeméer ak juróom-benn fukk ak ñeent ci lalu hôpital yi walla ci loxo docteur yi ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi ñaanal kooku génn àdduna yàlla xare ko àjjana di ñaanal ñoo ñu des hôpital walla ci biir kër yi yàlla may leen tan bañu moom seen bopp ak jàmm Euh, ñu daal di nag ñëw ci résultat élection yi ca Côte d'Ivoire foofee nag kii di Alassane Dramane Ouattara la ñu daal di nag jébbal ndam li mbir mi nag tax na réew ma daal di tàbbi ci ab guute ndax opposition bi lànk ne daal résultat yooyu duñ ko daal di nag nangu ne ñu daal euh, bañu ci dara ba daal di nag jaamarloo ak euh, moom teg nak ab kuréel di conseil national transition ngir mu daal di nag wëyal li nga xam ne mooy doxalinu nguur ga ci waxtu yu ñuy jëm sa duggéey ba dëkk bu ñu nemmeeku fitna laata élection présidentielle yi di tàmbali foofee ca Côte d'Ivoire waaye mu mel ni nag mbir yi nar na gën a doy waar gannaaw bu kii di Alassane Ouattara daal di gañewee li di élection yi Kwame Robert bokk na ci bureau de la délégation PDC yi fii ci Sénégal. mais les ay résultats yoo xamante ne kii di opposition d'accord ci benn yoon. résultats yi nga xamante ne daal nañ ko am ci élection présidentielle yi nga xamante ne day wax rek ne kii di Alassane Ouattara moo daal di gagné yile élection boo calculer candidat bu nekk pourcentage bi ñu am. li nga xam ne rek lii jaarul yoon ba tax na conseil national de transition bi nga xamante ne dañ ñëwoon rek dañ ko fay daal di teg dañ ko amal file kay waxtu waaye naka la transition boobee nar a demee gouvernement de transition bi ñu doon wax nag file kay waxtu lañ ko nar tëral te loolee bu demee ba am kii nekk njiit conseil national de transition bi moom dafay rek daal di tabb ambassadeur ci réew bu nekk maanaam kii di Alassane Ouattara ambassadeur yi nga xamante ne ñoo fa nekkoon mu tabb leen dootuñu fa amati nen itam ndimbal kii di CEDEAO ak Union africaine waaye mu mel ni ñaari institution yooyee ci nguur gi lañu ñu far. Oh, Union africaine ak CEDEAO ñoom nag amuñu dara luñ leen yi wax ndax ñoom wane neen carrément nekk ci kii di Alassane Ouattara lu ñu daal di far jamono ji nag li jar a def mooy ivoirien bu nekk xam boppam te ku nekk xam ne ci boppam la mën a compter bu amul nag dëkk bi boo oytul dina rek daal di sooxee Alassane Ouattara daal di nag jël élection présidentielle yi fële ca Côte d'Ivoire raw nag opposant yi ñuy wax Kouadio Konan Bertin Pascal Affi-N'Guessan ak Henri Konan Bédié ay résultats yoo xamante ne kii di opposition d'accord ci benn yoon te ñàkk ànd boobee ci résultat yi bu moyul sax dina jur fitna foofee ca Côte d'Ivoire. Euh, ci la ñuy dikk football ak éliminatoire CAN euh, ko double confrontation ndaje diggante Sénégal ak euh, Guinée Bissau kii di nag entraîneur bi Aliou Cissé daal nay fësal liste ñaar fukk ak juróom ci ay joueurs yi ko war rek siq neen nag am na ñaar yu bees yoo xam ne dugg nañ ci tànn tanière bi leeral yeeg Odile Minkila. milieu de terrain yi di Moustapha Nam di tàggatoo ca Paris FC nekk deuxième division bu France ak ki nga xamante ne moom mooy Franck Kanouté ak le Bruges nga xamante ne club la bu nekk ci première division euh, belge ñoom nag ñoo yegg si yees ci équipe nationale bu Sénégal sélectionneur national bi di Aliou Cissé daal dina fësal tey ci mardi bi ci page Facebook bu fédération sénégalaise bu football ab liste ñaar fukk ak juróomi joueurs yi nga xamante ne ñoom ñoo fas yéene laaleek Guinée Bissau ngir ñetteel ak ñeenteelu bëccëg éliminatoire CAN 2022 ci bile liste am na ñetti gardien de but muy Edouard Mendy Alfred Gomis ak kii di Bengoura Camara yi toll nañu ci juróom-ñett Youssouf Sabali la Moussa Wagué Kalidou Koulibaly Salif Sané Pape Abou Cissé Ousseynou Ba Saliou Ciss ak kii di Arial Mendy milieu de terrain yi juróom-ñaar lañu Idrissa Gana Gueye la Moustapha Nam Pape Diop Gueye Franck Kanouté Pape Alioune Ndiaye Crépin Diatta ak Cheikhou Kouyaté attaquant yi it toll nañ ci juróom-ñaar Ismaïla Sarr Habib Diallo Opanguet Famara Diédhiou Diao Baldé Keita Sadio Mané ak kii di Moulay Dia ñii nag ñoom ñooy gaynde yi nga xamante ne ñoom la Aliou woo ngir rek ñu daal di jàmmaarloo ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy jurtus yu Guinée Bissau yi. match aller bi nag jàpp nañ ko fukki fan ak benn ci weeru novembre bi ñu nekk ca stade Lat Dior bu Thiès match retour bi nag ca Bissau lay amee fukki fan ak juróom-benn ci weer wi ñu ne. Sud FM. ganu bés bi. Ibrahima Bakhoum nekk journaliste formateur di jàngat itam wàllu politique ak dugg Idrissa Seck Omar Sarr ci nguur gi la ca nguur gi war rek am ak la ca man rek ñàkk waxtaan ak El Hadj Malick ñu ngi ak Ibrahima Bakhoum ñu ngi lay nuyu. salaamaaleykum ñu ngi leen di fay. yow nag ngay daskatu xibaar bu ràññeeku nga waaye tamit di jàngale tasum xibaar nekk tamit analyste politique alors gis nañu kat euh, Sénégal dafa am actualité bu fort bu fi am lu jëm ci wàllu remaniement bi ak tamit loo xam ne lu am la muy Idriss Seck dugg ci gouvernement ak ay ministre am ak ay ñooñam ak tamit beneen wàll bi ñoom Oumar Sarr ndax mu ne fi mu toll nii am na loolu mën a indi reconfiguration politique ci biir Sénégal fi mu toll nii. waaw bu fekkee ne dañoo xam nga reconfiguration politique ci ñaari mbir la mën nekkee benn bi muy ci nit ñi benn bi mu nekk ci kuréel yi maanaam parti yi bu dee ci wàllu nit ñi waaw am na yu bees waaye yu bees yu nit ñi seeni woon tamit xëy na am nañ betteel ci wàllu Idrissa Seck ndax luñ ko déggoon muy wax duñ ma mu du ma nangoo jël du ma duñ ma musutee na nomé ci ay décret dañ may fal rek man fu fal laa gën a yaakaar ak ñeneen ñoo xam ne ji ñu ngi woon ci yeneen Idrissa Seck moom noppam ngi bu mu ko defee bu yàgg na nit ñi foogoon na ne bu génnaatee rek comme ni mu doon faral def bu génnee rek na wax lu am solo ba mu njëkkee génn mu namm naale rek la fi génn léegi nag mu dugg am na ñu ko séen woon bu yàgg xamoon nañ ne mu ngi ñëw moo tax ñenn ñi bett na leen am ñoo xam ne naam yëgoon nañ ne am na luy waaj waaye nag gisewuñ ko nii moo tax foofu bu fekkee ne dañoo jël jëmm ji rek mun naa indi ak soppiku ci wàlli doxalin ci wàllam moom waa ñoom it Omar Sarr ñoom yàgg lañ seen woon na ñoom tamit ñu ngi waaj lii ndax loolu boo ko xoolee xëy na dafay soog a feeñ rek waaye Omar Sarr moom ci ñi gëstu loolu ñu koy toppatoo xamoon nañ bu yàgg ne moo ko Macky Sall amoon doon dañu am ay wax ak i daje loolu doon leeroon na ci bopp ñu bëri moo xam muy muy ndaje directement wala boog ndaje ci diggante ay ñu ñu yónni waaye lu loolu daal ay jokkoo doon na am kon loolu moom bettul kenn wàllu boobu boole jeeg la nga xam ne noonu lañ gisoon ne PDS di ko doxee ñoom it d' accord tuñ ci woon comme d' accord tuñ ci ñu génn dañu génn defe nañ ñu def waaye li ci nekk mooy boo jëlee jëmm yi euh, néew nañ doole lool ndax Idrissa ak lum lépp lu xam ne amoon na ko ci ci doole ko xoolee fi nekk ci bëri wàññeeku na lool wàññeekoon na naam ci wàllu politique ndax bi nga xam ne ñenn ñi jàppoon nañ ne war nañ ko mën a gunge ci présidentiel bi mu dem ci ñooñu ànd ak moom. bu mujjee fii daf koy néewal doole ci wàllu li ñu koy gisee néewal ko doole ci wàllu ñu ànd nag moom ñoom it Omar Sarr ñoom wax dëgg seen doole sax dafa wóoloon noonu fay parti bañ jóge commencé woon na néew doole ci gisi nit ñi boo ci boole nag yow tamit yow nga génn ci lu néew doole te taxul nga am doole bu boobaa tamit da ngay gën a néew doole ñoo ñu waree Macky du doon dimbal ci moom du doon dimbal ci mais nag moom ni ñu ko mën jaaye jaayee mooy ñu bëri léegi ñi nga xam ne ñoo àndoon nag yëpp ñoo nekkoon ci eh, ñoo amoon doole tur tur la rek wax la ñi amoon doole ci kujje kujje gi léegi ñoom bu ñu ànd ak Macky kon dafay tax mu gën a am doole déedéet demewul loolu dañuy wax ne ji eh, néew doole néew doole boo leen boolee tamit wàññeekul gën a rek lay lay mën a am waaye du yokk doole ndax bu fekkee dangay ngay dem dëgg dafa war nit ñi noonu la ko nit ñi di gisee nit ñi diw dafa waraate diw li mu li mu diggoon du lii diw fañ ko doon séenu du fii loolu yëpp boo ko jëlee nga jël réseaux sociaux yi nga jël sénégalais yi ñuy xalaate nga jël li ñuy wax yëpp da ngay xam ne kon lañ desee woon nag as néew ci ci ci ci nuñ leen di gëmee loolu dafay wàññeeku bu loolu wàññeeku ñoom ñu ñu war a Macky Sall Macky Sall ci mu ngi ñàkk ñeneen ci biir yi nga xam ne ñoom ñoom la nekkoon ci bennoo am ci ñoo xam ne ay kànk kàngam loo xam ne ñoom wóolu woon leen leen amoon nañ tur amoon nañ suñu degré waaye ñooñu tamit bu dafa leen teggi teggi ñi xawoon na am doole fee jëleen ñoo xam ne ji ñu commencé woon néew doole nga boole leen du tax yow nga am doole loolu bokk na ci li nga xam ne jii boo xam ne sax dañuy am recomposition maanaam ndax yëf yi dafay të tëggewaat leneen tamit gaw mën nañ ñi waat bi am na leen lu mu soppi. mais mais léegi situation bi kan lay arrangé. ku jëg politique gi mbala Macky Sall bi doon bu bees bi. su nekk nii bu ñu nekk kujje politique da ngay laaj ci fenn kan mooy kujje gi lan mooy kujje gi yow doo xamante fi mu nekk nii ku nekk ci kujje ku nekkul ki nga moom lañ ci gis mu yëngatu di ci wax mais nam Ousmane Sonko la. moom da ngay Ousmane Sonko da ngay nangu ne moom opposant la pour dëgër ci ci ni muy waxee ci ni mu ko gëmee ni ñu ko gisee gum ni ñu ko gisee gum yàggul ci politique rek lool lool waaye daal ci ni ñu ko gisee gum daal mel na ni ku dëggu ci lim nekk koo gëm te it boole ci boo xoolee daf see yàggul ñëw am député ñu naan dee waaye mu ñëw nekk troisième ci présidentielle waxu ma waxu naka la ñu organiser présidentielle bi la jiitoog la ca topp bi ban su ma yónnee aussi wax mooy résultat yaa ngi nii mooy troisième jax ku mel noonu nag bu fekkee dafa kur ne nekk ci teree bi ni mu waxee moom mi ngi wax ne ab opposant gi nii waaye bu ko weesoo beneen opposant boo xam ne ci mu ngi feeñ noonu gisoo waaye nag bu ñu fàtte ne lu bees ci wàllu politique ci Sénégal ak ci àddina si mooy réseaux sociaux yi ñi ciy bokk di wax dañu ëpp doole fuuf ñi nga xam ne di ñoom ngay dégg ñuy wax parce que parti yuy def meeting daanaka xew na bëreetul boo parti yuy yuy def ay communiqué yu yu xam ne ji mën ngi ci jëlee daanaka amatul léegi dañuy ci réseaux sociaux ñu nekk jox wax li ñuy wax réseaux sociaux yi lay woon ne am nañ doole mooy Ousmane Sonko foofu la feeñee ñu gis ngi gis li mu am ci ci ci ay ay voix ci ñaari élection yi mu bokk donc foofu dafa da ngay xam ne xam kenn kuy opposant bu dëgër mënatoo xam kenn kuy opposant bu néew doole parce que opinion publique maanaam li nga xam ne xalaat ne doomi aadama yi dafa am fu ñu koy tëggee am na leneen ñu koy tëggee am na leneen nu muy dox ci suuf loolu ci kanam lañ ko mun a xam mais fu ñu toll ko tollagum nii noom yëf yi daal la munoo wax ne ji affaire bi arrangé na guur gi maanaam Macky Sall munoo wax ne deewal na ko doole en tout cas jox ko doole man daal mun naa li ma wax daal mooy yokkul dooleem a wax. lu tax lu tax yokkul doole Macky Sall. li tax yokkul dooleem mooy ñe ah, dafa am noo xam ne boo ko ni doxalee la mu lay yàqal dafay ëpp xam nga wax dafa am benn bés ba nit ki buñ naan da nga yeewu da nga yeewu euh, yeewute gi dafa am nu muy demee xam nga naa naxe ba jàll bokkul ak ku yeewu. ci yeewu dafay loo xam ne ji bu bu jàllee tamit ba dina jàll ba poroon ni te nit ñi duñ teel xam ne ji ki leen doon ndax mais yow loo xam ne ji dafay da ngay séenu muy xeeñ di ñëw nga ngi naxaate baa ngi naxaate baa ngi ba mu agsi kooku defal dafa def doole xëy na waaye nag ñii nga xam ne tamit ñoo ca topp dañoo dem ba xam na opposition dafa métti nekk nekk opposition dafa métti parce que ci Sénégal jii suñ suñu réew mi politique moo fi man la nit ñi jàpp ne moo fay joxe xaalis pour kan moo yore xaalis bi nguur gi moo ko yore boo ànd moom jot boo àndul ak moom néew doole parce que kenn ku fi yore eh, capitaine d'industrie bu am doole boo xam ne ji ci am koomam dëgg ak liggéeyam rek rek lay doxe def fi bëriwul ci réew mi am na fi naam waaye def fi bëriwul ko bëriwul fa nag nañ ci politique bi ñu yaakaar politique bi nag bu fekkee nag nguur gi moo ko yore téye ko ah moo lay jox mooy séddale borom bor yi ah bu leen bor yi nare sonal ñu ñëw jege ko mais buñ ko jegesee jege bañ koy jege yi fi feeñee nii ñëpp dañuy jàpp ne kiy joxe gorewul ka ñuy jox gorewul. Ibrahima Ba xam Ibrahima Ba xam bu baax a baax. allez jaajëf merci beaucoup. Le Mali, la Mauritanie, le Sénégal et la Guinée mènent ensemble dans le cadre de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal des programmes pour maîtriser le fleuve et satisfaire bien des besoins indispensables à leur développement. Grâce à ces infrastructures qui permettent de mobiliser l'eau, L'OMVS contribue à l'alimentation en eau potable des populations, au développement de l'agriculture irriguée, à la sécurité alimentaire et à la fourniture d'une énergie propre et bon marché. Et bien plus encore, ces actions ont des retombées concrètes dans notre vie quotidienne. L'OMVS, un outil d'intégration, un levier de croissance, vous offre Wax sa Ah, ñu door ko Pape Alé ponk yi ñu jukki bokk na ci nag eh, lu aju ci yenn ci réaction yi gannaaw eh, ba ñu sampé gouvernement yu bees yi réaction Mimi Touré ñu daal di ci sukkandiku gannaaw yéen koy tuumal ak tontu mi ci indi ak yeneen eh, wàllu tukki dem bitim réew bi ak ñu ci bari nekk ci dëj jamono jile ay téeméer ci ndaw di faatu ci la bokk ba ci élection yi ci l'Afrique exemple bu Côte d'Ivoire allo allo. asalaamaaleykum waaleykum salaam wa Oustaz Adama man la Chérif. Chérif ñu ngi lay nuyu Chérif. maa ngi leen nuyu di waa Sénégal yëpp. Mhm. maa ngi ñaan borom bi subhaanahu wa taala allah azza wa jal mu aar Sénégal. aar Amérique aar adduna bi yëpp. Mhm. Oustaz Adama. Mhm. man li may ñaan suñu moromu ndaw yi. du ñu découragé. nañu takkaat seen tubéy yi. ñu taxaw. amul benn réew ci adduna bi boo xam ni ki ay vieillard ñu baal ma ci kàddu bi ñoom ñoo ko taxawal ay ndaw ñoo samp ay réew du ñu découragé wala ñu toog ñu croiser les bras ñu ne ñoom génn nañ ci politique parce que politique yi politiciens yi ay escroc la ñu du ñu def loolu nañu bañ nañu taxaw sur le terrain ak fépp fu mu mënti doon pacifiquement ñu génne leen suñu réew ñu tabax suñu réew et c'est possible réew adduna bi yëpp laa lay wax ni fépp fu ma mënti dem ay ndaw ñooy dañ tey tey tey jii ñu leen jiite li ñuy def ñu lank ko taxaw sur le terrain ne lii def fii dañ mu dañ fii di jël ay gaal naan mi ngi dem Europe wala Amérique wala feneen man dagalu yàlla rek moo tax tey ma toog Amérique te bugguma di ñëw si sama history loolu taxumaa jóg mais li may wax ndaw yi man balaa may ñëw Amérique fii dama teddoon Sénégal ba pare te dama daan jaay di dugg ci bunti kër ak bunti kër laa lay wax ni billaahi wallaahi tallaahi ñi xam Chérif xam nañ li may wax faale ma woon papa wala nijaay wala keneen ku am lépp lu ma yaakaaroon ci yàlla laa ko yaakaaroon ne xam ni ki yàlla bu ma góorgóorloo am na lu mu def ci man te dinaa ci man a tekkee te dafa tekki man sama visa sama biir place la ma fekk pour ma dem tukki Amérique man utul ma visa pour ma wax len ne dañu war a gëm seen bopp du dugg ci gaal yi moom mooy tax nga tekki du dugg ci gaal yi am na ñu bëri ñoo xam ne fii ñu ngi ay sénégalais ki africain di yelluwaan man naa leen wax lii bu leen gëm leen seen bopp te Ousmane Sonko maa ngi koy wax ñun ci moom la yaakaar tey bi mu takkale benn politicien ne dafay ut nguur yàlla mooy joxe nguur na gëm boppam gëm ñu billaahi wallaay tàllaay bu ñu ko liggéeyee yàlla mun nañu jox nguur gi nañ ko liggéey sur, sur, sur, tous les coins du Sénégal, comme, comme nos jeunes, l'amener cette responsabilité, l'amener ce devoir. Hmm. waaw parce que lii ñu Macky Sall def nii trahison bu mag la parce que Idrissa Seck mënul ñëw di ko jox neuf par an neuf yooyu rek pour moom asseoir pouvoir am. Hmm. c'est une trahison. waaw loolu mooy jàngatam Chérif ñu xaar keneen jël ko ci ligne bi biir réew mi wala bitim réew allo. allo allo waaw. salaamaaleykum. waaleykum salaam. Oustaz Adama. waaw. Bàcc si Kër Madaro. Bàcc ñu ngi lay nuyu Bàcc. maa ngi lay ziar di ñaanal Sénégal gépp jàmm. Mm-hmm. di ziar njabootu Seydi El Hadji jàmm. Mm. di ndokkeel ak di remercier président de la république ci confiance bi mu amaat ci sunu ministre social yi muy euh, Serigne Mbaye Thiam ak Aliou Ndoye ak kii comment dirais ak Aliou Ndoye. Mm. Euh, rafetlu nañ tamit sortie bi nga xamante ni secrétaire général par intérim bi Aminata Mbengue Ndiaye génne na ko la mu wax rafet na nag. waaye dañ koy fàttali rek ni ko li nga wax rafet na trop waaye congrès tamit jot na de na organiser congrès bi. Hmm. yow kii comment dirais je euh, Adama. Hmm. président de la république daal moom lañ fal. Hmm. moom lañ ne ko mu nommé gouvernement mooy nommé ku ko neex. mooy folli ku ko neex. lu dëgg. Kantaa nag dugub Idrissa Seck ak dugub keneen léegi daal lenn moo am Idi moom Benno Bokk Yaakaar la bokk léegi. amul kenn ku mën a taxaw fi naan Idi laa faral waaye faru maag Macky Sall mënatoo neex. ci di lam doon wax dimbal li ñu wax di bokkutul am nañu fi taxoon fii ci wax sa xalaat ay ustaas naan Macky Sall waxam ay laaloo la boo ci jógee ay rek léegi nag nañu ko laaj rek kooku nañu wax wax Idriss rek moom lan la moo bi daan taxaw naan kaddu nit day fonk kaddu na nit kaddu lañ koy jàppee dégg naa ko bii ci wax sa xalaat ma naan waaw kaddoom doy na ma déedéet affaire bi noonu de Adama fii daal vaar baa ngi fii ni mu amee ci football bi noonu la amee ci wax sa xalaat bi noonu la amee fépp maa ngi dégg man daal kontaan naa trop ci président ni mu tëggaate gouvernement ak sama camarade socialiste boole man loolu moom ci intérêt li ci des moom la fal na doxal wasalaam. Euh, Pape Laye jaajëfal ko kon nag euh, mu ñuy xamal ne euh, ñu ne ci ligne bi jéggalu waxtu yi moo ñu daal di nag dàpp gaaw dañ ciy toftal sud éducation buñ ca noppee 18h dafay daal di jot ñu ànd ci xab sa Ilimane Wane jéggalu ci ñu nekkoon ci ligne bi jaajëfal Pape Laye Dieye moom lañu àndaloon ci sottandikukaay bi mu ci biti ak jàmm biir gudd fan ak wér la am ak mën ak fekkeek tal yàlla ko yàlla defal jërë ngeen Mali Mauritanie Sénégal ak Guinée lëkkaloo nañu ci biir organisation pour la mise en valeur di fleuve Sénégal ci taxawaay ci ay programme yu am solo ngir jëriñoo lii di fleuve Sénégal te saafara ay soxla yoo xam ne ñoom ñoo ko bokk te mu jëm ci développement ci ay infrastructure jumtukaay yuy tax ñu mën a am ndox OMVS taxaw ci jàppale population yi ci am ndox mu sell waaye tamit lii di mbéyum roose mi ñëpp mën a am dund gu doy sëkk ak énergie boo xam ne day yomb ci marché bi ak yeneen ak yeneen muy lu ngeen di yëg ci seen dundin bés bu yàlla sàkk OMVS ngir lëkkaloo ak suqaliku moo leen doon may seen émission wax sa xalaat